dikkati na gan gi la dul ñàkk seet si day mooy dee turbine yéen kaay naan maan moomi bu so sekk faatu na ñeen fukki fan ci tey moom moomi daal di fanaan bàmmeel bugaan géey dani daal di sukk ñaari tànkam ci suuf naan kon yaay moomi baal ma naam maam sëyna bu mooma andi ci àdduna waaye yow moomi dani day daal di nga may bood rogganti yow moomi dani daal di nga may uuf sa kaw nib doom te ba fii ma toog mësuma woon gëm ne wopp ju bon ji wopp ji nga xam ne day nekk ci biir yaram di yàq te ni cel wopp ji nga xam ne la mu yàq ëpp lu muy defar wopp ju ñàkk kersa gii nga xam ne mën naa tëral ku ne masumaa gëm ni gile wopp dana jël soxna su yiw su tedd su taaroo ni yow moomi buso ma nga naan kon dem nga bàyyi maag wéetaay dem nga bàyyi maag njëriñ loo xam ne amaloon nga ma ko dem nga bàyyi maag loxol yiw ya nga xam ne moo ma daan sàmm dem nga bàyyi maag mbëggeel dem nga ma gëj a gis ak reetaan waaye tam mbëggeel ga ma daan yëg saa bu ma janoo ak yow ma nga naan kon yow moomi buso benn yitte nga amoon mooy man fukki at ak juróom ñaar ci sunug sëy gii sëy gët say soxla du woon lenn dul man ak sa njaboot bugaana nga naan jigéenu àdduna yéen jigéenu Afrique waaye tam yéen jigéenu senegal sukku naa rukk jébbalu jéggalu it ci seeni kanam jéggalu ci li ma yeex xam dëgg-dëgg ci woppuk mama moomi gii li ngeen yenu ci seeni mbagg yéen soxna itam mu diis lool le mandat yéen kaay naan ñeen fukki guddi moomi dani géey moom bugaan géey dani def na ca témoignage bu daw yaram waaye tam riir jëmale 2024 direct news naan kon déet bugaan kay dafay sargal mama moomi critique yéen kaay naan kon sargal na ko waaye tam tax livre programme am bii war a fukki fan ak ñett ci weeru novembre pàcc bu am solo mu jagleel ko soxna yi 24 heures yéene kaay naan bugaan géy dani ma nga naan benn ngànnaay moo ma dese ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre gi naa ko xamle dib téere goo xam ne maa ngi cay sargal sama waaja ndem si yàlla moomi dani l'évidence yéene kaay naan kon bugaan géy dani day ci livre programme am bii ma ngi ko ibbee ak moomi dani géy naan kon jox nga ma lépp li ma soxla woon ci àddina yow moomi jox nga ma sa mbëggeel jox nga ma sa àdduna jox nga ma sa dalak sa teey jox nga ma sa bëggug mbokk mën a yaatal gan waaye tam jox nga ma sa engagement tey bii dama lay ñaan ci aljana ya nga tëdd nga may ma sañ-sañ rek ma daal di xamal sénégalais sama livre programme bi lii ko di jeen naan ma nga naan kon dëj baa ngi ci sama yaram ci foo làmb te ci naqar gii laa fas yéene ñaabar ñaabar jëm ak moom campagne poy ak ci naan ma nga naan kon naqar gang ma daan nëbb saa boo ko daan am lii laay fasanteel fas yéene soobu ci campagne l'info yéene kaay naan kon bugaan gay danee ngay sargal soxnam sa moomi bu so seek yoor yoor naan kon sargal ko ci ci livre programme bi nga xam ne ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre gii la koy présenté sénégalais yi ci boobule programme lu toll ci ñaar fukk ak ñeent ci ay yoo xam ne ma nga ca te la ca ëpp nag ñu daal di cay compal soxna yi ba maar day taali laas yéene kaay naan kon ca waxtu woowu moom amadu Ba candidat Benno Bokk Yaakaar day xeer yaa ngi koy dalee fu ne ña nga xam ne nag ñoo doon ay mbokkam tey jii ñoo jël Amadou Ba di ko jori xeer ba maar day taali wal fu ko di jee naan kon déet rafetal wax kay mënu fi nekk Amadou Ba ci boppam adversaire am yu njëkk ñooy waa APR attaque yi nag jógewul ci ñenn ñu dul ñoom ña nga xam ne ñoo moom langue gi moom Amadou Ba le témoin yéene kaay naan kon fi mu ne mu tàng-tàng moom Amadou Patt rek ndax nag Souleymane Jules Diop ak Bibi Baldé seen wax ji lu mu rëy rëy lum ko metti metti wanaasu rek ndax Amadou Ba mii sañta dëkk président Macky Sall te tontu ñoo ñee mooy dëkk président Macky Sall jamono jii na Sall ba tabb gii daal di bàyyeekoo ci moom dana métti ci moom wala ndax mënta ñaabar ñaabari campagneal boppam ndax Sall ka gatandu téye ko l'observateur naan man ku téye Ousmane Sonko xanaa yoon lu ne mën naa am na ci coowal Ousmane Sonko li ba bindaat ko électorale yi mën naa nekk vox populi naan man président Abdoulaye Sylla de ma ngay dalal xel yi nee na lu yoon wax la ñuy daal di jëfee docteur Babacar Diop de ma ngay dox bëgg Sénégal nag doon Sénégalu gelawaar yi di Quotidien naan man Anta Babacar Ngom it ma ngay ñaabar ñaabareeg fitam daal di dëkk Casamance altine ba tey moom njiital mouvement bii di ARC ma nga Casamance ruwa ak reenu usuy ba teeru ko ruwa enjugu ba teeru ko xamal ko yi wan ko yoon wi nga xam ne moom lañ bëgg jaar ngir Casamance am jàmm ba faaw ci waxtaan woowee nan sañ-sañu soxna yi ak seeni ak ak yelleef jaarale ko ci teel sëy yi nga xam ne ñi ngi koy def xale yi foofee waaye tam xarfal yi ñuy def ci kaw xale yi jigéen yi reenu usuy bi nga xam ne mooy ambassadrice bu mbootaayu xeet yi ne ko taxawal naa plateforme bu koy xeex te bëgg nañ nga soobu ci xeex googee Anta Babacar Ngom nan kon nan ca soobu waaye fitna yi nga xam ne soxna yi dañ koy dund nañ ko daal di xeex mu daal di fi jóge waaye tam nañu fexe taxawal maison de la femme bi nga xam ne soxna yi saa buñ ndimbal mën nañ fa jublu saa bu ñu bëggee ku leen fat daar daar ñu daal di fay jublu saa ñu bëggee taxawaay wàllu yoon ñu daal i kër man faa jublu ndiki noonu taxawal fa ay usine ak yeneen yoo xam ne soxna xale Casamance daan ci gis seen bopp les fa yéene kaay naan man mangaan ngaa ngi mel ni tulleeg maale direct kon en xam ne ñooy an mbalit mi moom natt lan taxawal daal di koy duppee gaalu mbalit ñu bari ci ñoom daal dinañ des ci géej gi les fa yéene kaay naan man président Macky Sall na saafara daar daar mënu cee ñàkk le soleil yéene kaay naan man Sall nga Kédougou lu toll ci juróom benn téeméer ci ay milliards moom président Macky Sall ci fukki mesure ak juróom fasal na ko yéene Kédougou turbine yéene kaay nan kon maire ba ma nga naan kon yow président Macky Sall daanaka lu bari defal nga ko Kédougou waaye am na yoo xam ne tey jii mooy jàmbatu Kédougou moom Ousmane Sylla naan kon am na ci quartier yu ci mel ni Tripano ak Ndormi ak dëkk-dëkkaan yu mel ni Keñoto bëgg nañ mu daal di leer bëgg nañ aménagement bu ville bi ndax yokkuteem saa su nekk day am bëgg nañ ndaw Kédougou it gis seen bopp ci wàllu tàggat yaram ci wàllu njàng meeg njàngale mi jàngalekat yu mitti daal dinay am Kédougou bëgg nañ ci saafara diggante Kédougou ak Fongolemi it bëgg nañ ci yoon woo xam ne askan ni daan ci gis seen bopp waaye tam ñu daal di dër ay tali yu ci mel ni Bembu Sabadola Saraya Missira ak Sirimana niki noonu it bëgg nañu ab complexe boo xam ne daanaka ñeenti téeméeri junni feer mënees na ko fa def atu yàlla sàkk bëgg nañu ab muse bëgg nañu ay hôtel yoo xam ne dina méngoog jamono Ousmane Sylla maire bu Kédougou naan kon terewul yow président Sall it suqali nga Kédougou ba mar day taali laas naan kon bi ña ngi koy naj fayallaahu moom Amadou Ba day jamono jii mi ngi daj diggam ak ay mbokk APR loo xam ne mburu daju ko ci taal ba Ndumbe Diop Thiam bu M3S daanaka ñàkk xam rek la moom docteur Ndumbe Diop Thiam ne dañuy sargal président Macky Sall lu war la waaye tam jàppale candidature Amadou Ba bi it lu war la ndax lii nag mooy ndonol président Macky Sall nangu ko nangul président Macky Sall la xalab ko it xalab président Macky Sall ak i dogalam la ci réew mi M3S naan allié nañ ak président Macky Sall allié ak Amadou Ba ngir jàppale ko ci yile présidentielle turbine a kaay naan kon laaj bi sampu moom moo di fit ci boppam ndax dana am fit wu mën a dënk président Macky Sall ak Amadou Ba ba lii nga xam ne fas nañ ko yéene ci réew mi du mën a antu laas yéene kaay nan kon en tout cas Sénat moom luñ ko jor ci xeerit yëgul ka nga xam ne moo ko jiite daal dinay waat ni ki démb turbine yéene kaay ni ko déet moom président Macky Sall kay neel daal dinay dalal njabootuk Sénat gi ni ki démb turbine yéene kaay naan kon jeexal ak man tës gaa nga ca Kolda ak soxna soo xam ne dafa daal di tëb ci teen daal xaru mbir maa nga amee ci quartier bu ñuy duppee zone lycée ñeen fukki at ak juróom la amoon am ñett ci ay bant